Yes, this is the new conference center as you can all see right now. There's a new building that everybody is talking about OIC to name after former president late Sadauda Karaba Jawara Gambia yéen a uh, building bi nu uh, King yànjee ki former president bi uh, di Sadauda moom today plus place bi Gambian talent, TV and I seetaan ñu new leen plus bi yànja bi bu ko defee rek ko nin rek la moo demee. ba léegi ngeen naa gis conference hall baa nga ni Gambian Talents ñoo leen ko indil conference hall bi gars ñu ne international standard mu ngi nii waaye question bi nag moo nekk ne defar neen ko ba mu nice Chinese si def neen euh, li nga xam ne moom leen mun waaye ndax Gambian si dinañ ko maintain dinañ maintain standard bu correct bi ndax tamit euh, li nga xam ne mooy ñu fay liggéey ndax dinañ xam ne euh, conference bi. tour bi wuyu na borom yéen ko gis ceeni si yaa ko mu nice mu yanjal lool ah ñu ne nag euh, kii lañ ko tuddee ki nga xamné moy sa Dawda Jawara Sir dawla karaba Jawara International Conference Center officially open euh, si nga xamné nak moy Saturday 11 2020 euh, by His excellency Adama Barrow ma ngi ni Gambia kon conference hall bang ngi ni ngay gis fi ci Bijilo